Kaba Diakité xaw ma. Kaba Diakité Kaba nee naa la duggal parcelle nga def micro trottoir. mais mais na kon nduru na kon lañ fi toppee woon ndax wàllu terrorisme. mais mais man man man man bi ma gisee les charges contre Kaba Diakité toog ak ay procham mais liñ sama xel njëkk a dem mooy l'affaire Imam Ndaw parce que affaire Imam Ndaw kat ba mu naan teel euh, dama dem seeti ko déglu dem Kaolack ci daaraam déglu ñoom ma génn leen kii dañ koy tooñ lu nekk dégg nañ ko ci. état dafay am ay renseignements état du nangam état bu ko toppee nangam ratatati wax yëpp fi procès bi mujjee mooy Imam Ndaw dañ ko bàyyi mu dem ñibbi ce la même chose Kaba Diakité bu ñu defee une enquête sérieuse dina xam ne amul lenn benn infraction bu gën a ndaw imputable à Kaba Diakité te xam nga fi mu toll nii lan la ñuy wax ay atteinte à la sûreté de l'État cest dire des infractions yoo xamante ne tey dix jours plus de dix jours def na ko garde à vue parce que loolu xam mais xam nga lan moo ko waral mu mën a def loolu. Mhm. parce que li leen di torturer moo diis. koo xamante ne ay masque lay jaay. papaam moo ko doon jaay papaam papaam ay masque à gaz papaam moo créé woon entreprise muy importer ay conteneurs vingt cinq ans. mu koy ak mais rax nañ ci ne daa yor ay ngànnaay yu muy yu muy jaay ci suuf de. Hmm. xam nga lan mooy ngànnaay bi. Mhm. xam nga lan mooy article militaire bi. mooy lan masque yi masque yi dara ñu wax nee nañ masque yi boo koy jaay dafa war a am autorisation loo xamante ne port la jóge loo xamante ne dafa jóge port ñu génnee ko port conteneur mu jaay les trois quarts ba mu des as ñu ñëw ne ko yow euh, ay élément ay ay kiiw militaire ngay jaay amoon na benn loi bu ñu fi tegoon loo xam ne papa moo ko doon jaay laate papa waxuma moom de moom dafa doon activité bi quoi dafa donn activité bi ci papaam di ko def pendant plus de vingt cinq ans tey xam nga lan moo bees ci mbir mi mooy dafa bokk Pastef moom moom am na am na am na am na ay nga am na benn loi bu fi tegoon ci wàllu terrorisme. mais mais loolu moom mooy mais jibi loolu moom mooy dem nii actuellement nee naa la la li bees ci dossier boobu noonu du dara lu dul waa ji dafa rejoindre Pastef loolu kese ci bees mais léegi nag loo xamante ne waxuma la yow les années yi nga ko exercer mais sa papa loolu la doon def mais loolu noonu yëpp kenn jàppu la. ba tey ñu jàpp la la moo bees la ñuy laaj tamit. léegi ci cas li bees mooy Pastef la bokk. ci cas figure bi ndax moom mën na bénéficier wu comme ni ñu ko defee ak ñeneen ñi takkal ko bracelet électronique. waaw bien sûr xam nga attention bracelet électronique maa ngi la doon wax sànq mu ngi bokk ci technique yu ñuy wax euh, peine alternative. Mhm. Euh, maanaam technique d' aménagement des peines. Mhm. loolu noonu effectivement am na infraction yoo xamante ne mënoo koo bénéficier. Mhm. si tu es un récidiviste par exemple. mënoo bénéficier de euh, ñu takkal la bracelet électronique bu dee dañ lay toppee des infractions douanières certaines infractions douanières mënoo bénéficier bracelet électronique bu dee dañ lay toppee attentat à la pudeur mënoo takk bracelet électronique bu dee dañ lay toppee des infractions liées aux deniers publics mënoo takk bracelet électronique alors bracelet électronique sénégalais yi nañu xam ne munuñu koo takkal nit sans son consentement képp ku ñu ko takkal yow yaa ci consentir yow yaa ko nangu parce que dañ naan la mandat de dépôt baa ngi soit da ngay dem prison wala nga takk bracelet électronique bi bracelet électronique bi gaa yi ngi naan euh, dafa diis c'est stigmatisant donc stigmatisation boobu ñu ciy wax man jàpp naa ne euh, bon mën nga koo sol te kenn du ko gis ça c'est mais sa mi ngi peser cent huit grammes. cent huit grammes cent huit gramme lay peser. boo ko rechargé mën na def deux jours recharge bi deux heures à trois heures de temps mu fees. boo koy rechargé da nga koy tekki. déedéet. ah loo wóor na. déedéet courant nga ah, ah, boo koy rechargé doo ko tekki. Ah, loolu doo ko tekki. ñoom rek ñoo ko mën a tekki parce que ci euh, administration pénitentiaire ñu ngi xool onde bi. léegi benn appareil bi koy rechargé danga nga koy euh, day collé ci moom quoi. da nga ko da nga ko ci teg. voilà léegi yow boo ko bañee rechargé dañ lay ñëw jàpp yow prison. soo ko bañ a réserver waaw dañ lay ñëw jàpp yow prison boo ciy jéem dara pour fexe euh, brouiller onde bi wala dara dañ lay considérer comme ku évadé hmm. évasion lañ koy considérer ah bu déchargé te yëgoo ko non mënoo ko bañ a parce que déjà dañ lay woo ah. ne la affaire baa ngi déchargé chargé ko boo bañee ñu yow jël si la yóbbu prison périmètre bi nga xamante ne moom lañ la encercler boo koy waaj a génn day vibrer gars yi woo la ne saa yaa ngi génn nga duggaat hmm. euh, Penda Badji laa gën a yab comme bu ñu ko takkalee bracelet électronique moom wala tuuti buy jógee këram ak fi muy liggéeyee xam nañ ne euh, par exemple mi ngi dëkk Ngor. Mhm. tuuti mu ngi liggéeyee Sénégal set dañuy tracé périmètre boobu noonu. ne ko boo jógee sa kër demal léegi bu xëyee benn jour rek comme que moom dafa sob ne day dem Medina balaa moo génn bu bu dépassé Sénégal set rek affaire bi day vibré. te te te non day vibré balaa moo yuuxu sax boobu mu ngi génn périmètre am. ñu woo la ne la yaa ngi waaj a génn sa périmètre nga duggaat boo insister dem da yuux ñu ñëw jàpp la yóbbu prison parce que dañuy jàpp ne da nga évadé loolu beneen infraction la boo xamante ne ñu la ko jàppee amatoo sañ-sañu laajte bracelet électronique. mais ñii ñi mënoon nañ leen ñii waroon nañ leen mën a takkal ku ci mel ne El Hadj Malick Ndiaye. El eh, tamit. Euh, un cadre des impôts et mais pour man pour man moom moo gën yóbbu la prison. pour yow pour man takk bracelet électronique. man dafa bokk ci mesures yi nga xamante ne avant ñu koy indi Sénégal dama ko doon réclamer parce que surpopulation carcérale et autres léegi il fallait régler l' aspect technique régler nañ ko et l' aspect juridique boo demee ci code pénal euh, ci loi bu ñuy wax euh, loi 2020 28 du 7 juillet 2020 code pénal article 44 euh, tiré 1 et suivant di nga gis toutes les dispositions relatives ak bracelet électronique boo demee ci euh, la loi 2020 29 du 7 juillet 2020 ci code de procédure pénale article 707 tiré 36 jëm suivant di nga gis toutes les dispositions relatives au bracelet électronique man je pense que c'est une innovation boo xamante ne moom moo gën ngay téye gars yi di yóbbu prison yóbbu prison yóbbu prison ces mandats de dépôt systématique là ñu teg la bracelet électronique moom moo moom moo moom moo gën a foofu mais bu ñu fàtte ne malgré ces bracelets électroniques ils sont présumés innocents hmm. kenn condamné wu leen bracelet électronique kañ lay mën a denc ñoom buñ la relaxé buñ buñ la. tànk bàyyiwuñ la daal mbir mi du dañ. parce que actuellement ñooñu ñoom El Malick kenn jugé gu leen kenn waxul ne dañoo tooñ kenn condamné gu leen donc kon euh, en lieu et place dañ la doon yóbbu en détention provisoire. Hmm. actuellement ils sont sous bracelet électronique bracelet électronique bi mën na dugg ci ndox du def dara mën nga ko sangoo mais à à dire aussi que ni parce que euh, am na ñuy reen wéy euh, est-ce que duñ la topp atteindre à ta vie privée bracelet électronique bi amul caméra amul micro. puce la puce boo xamante ne. c'est important ngay xam loolu. onde bi la ñuy topp topp ñu nit ki maanaam euh, xam nga tey jii nii euh, bu ñu takkaloon ko mel ni man bracelet électronique ak yi may wax yëpp euh, mooy lool donc amul micro amul caméra amul micro amul caméra mën nga ko sangoo du yàqu ainsi de suite donc ñu xam aussi parce que ñi ko njëkk a def ci àdduna bi États-Unis la en 1983 mais gis nga li ñu ciy xarañ yëpp liñ ci aay yëpp. gars yi dañuy brouiller ondes yi yenn saa yi. Hmm. ah oui mais mais les brouilleurs d'ondes là ça se vend même sax sur internet. man je hmm. pense que ni Sénégal am na ay gars yu xarañ ci informatique yoo xamante sañ nañ ko mën nañ ko maanaam brouilleur d'onde bi boo ko kiiwee euh, tuuti day toog këram. Euh, onde kii bi bracelet bi di ko signalé ne mi ngi këram. Hmm. fekk moom génn na mu ngi Medina Yoro Fula kër mu dëkk Momo Cissé. parce que dafa brouiller onde bi de telle sort que affaire bi mi ngi signalé këram ndekete mi ngi Medina Yoro Fula. day am mm, France am na récemment benn cas jurisprudentiel benn détenu bu tudd Abdelkader moom dañ ko tegaloon mu teg brouillard dond euh, dond affaire bi di signaler këram ndekete mi ngi doxi soxlaam donc euh, je pense c'est une innovation mais soxla na une formation ci euh, kii bi administration pénitentiaire peut-être Moussa fi ñuy jeexale mooy discours à la nation Macky 3 avril la de incha allah. xanaa li xew ci dëkk bi yëpp dina ci àddu yaakaar nga loolu attente yi lan la ci discours boobu. Euh, man ne li ma ci gën a. yaakaar mhm. mooy mu wax ni 2024 fu muy taxawee. Hmm. ni wii nii non bi sonn nañ ci quoi boo xoolee ji bi tension bi ci réew mi yëpp. li ko waral moom mooy moom mooy 2024 y a plus d'interrogations que de questions que de réponses voilà une élection boo xamante ne 10 mois moo ci des xamuñu kuy candidat ak ku dul candidat. Hmm. ci du Macky Sall président de la République du euh, Khalifa Sall du Karim Wade du Ousmane Sonko ñoom ñëpp ku ci nekk am na benn affaire boo xamante ne mi ngi sa bopp bi et que mën nga bañ a doon candidat quoi président Macky Sall moom moo ko waxal boppam. ok benn candidat leeru fi. benn candidat leeru fi léegi nag incertitude dafa baaxul ci citoyen incertitude quoi maanaam euh, amoo certitude amoo espoir loolu dafa gaaw ci yëkkati tension temps day day ça rend les nerfs tendus. moom moo tax la tension politique actuellement elle est tendue aussi pour man li gën a am solo li gën a urgent mooy que le président Macky Sall yeewee askan wi yeewee askan wi en leur disant ce qu'il va faire en 2024 moom. loolu la ñuy xaar ci moom nee na moom nee na constitution bi moom euh, la la question juridique elle est moom loolu la wax. elle est réglée parce que moom mën na bokk quoi que son mandat acquis de 2012 à 2019 était hors de portée du référendum ok. mais waxawul léegi nag na wax euh, ñeneen ñi nga xamante ne euh, pour man ci opposition bi malgré que ni moo ci mujjee ñëw muy Ousmane Sonko pour man moo ci ëpp dayoo de fait c'est le chef incontestable de l'opposition hmm. mais euh, son entourage des na hmm. le combat qu'il doit mener mmh. non en tant que structure organisation politique autour de Ousmane Sonko pour man des nañ combativité ak liñ fi indi lépp Ousmane Sonko ko fi andi du ñoom. ah du ñoom. mais euh, yow bu ñuy toj Ousmane Ousmane Sonko ci corniche bi dangay gis ñoom El Malick da gis ñoom Bassirou Diomaye da ngay gis ñoom biram Souleye mais gars yi saa yi dañuy tegle tànk nekk ci plateau yi euh, euh, politique du loolu président Macky Sall ak loo ko mën ci wax entre mille 2008 bi muy nekk opposition ba 2012 bi muy jël pouvoir bi il était accompagné de gens très très très courageux mën naa citer l'exemple de Thérèse Faye. Mm-hmm. administrateur général euh, FONGIP mais kooku li mu mëne ci combat entre deux 2008 ak 2012 ba mu président Macky Sall jël ñu ci bëri ñu ngi yuuxu tey oo à côté du président dafa ñu ko woon à l'époque fi gënoon tension yi doon metti université fa la daan dugg le 23 juin kenn jiituwu ko assemblée national taxaw de mëne fa combat yu métti ak ba Abdoulaye Wade di ko jiiñ lan coup d'état ci jigéen. moo tax tey jii di posture bi mu taxaw dama koy comprendre mérite la combativité la courage la mais tey jii nii où sont les éléments de Pastef qui peuvent faire ce genre de choses pour Ousmane Sonko amul seul Ousmane Sonko est au front parfois di nga gis quelque ay ñoom euh, citizen surtout Guy Marius Sagna voilà quelqu'un boo xamante ne nag wax dëgg yàlla il est sur tous les combats yoo xamante ne dafay mëne li nga xamante ne moom mooy kii woom euh, bi ma bi ma gisee son acte héroïque keroog. dama ne gars yi xamuñu ko man j'ai j'ai combattu à côté de lui avec frappe parce que je suis membre fondateur de cette structure mais gor bu mel ni Guy Marius Sagna quelqu'un d'aussi courageux rare na nga gis ko te kenn mu cest gii kenn doo ko corrompre gii munoo ko du xaalis nga koy jaay du dara nga koy jaay donc voilà un exemple de patriotisme que je pense que nii voilà parce que pour jot nguur it loolu la de <laughs> nguur du ay euh, oui voilà donc euh, li nga xamante ne mi ngi ci kanam Ousmane Sonko euh, pour man affaire Sweet Beauté Adji Sarr yuuxu na fi lu yàggul dara ci l'observateur ne sonn na. waaw parce que xam na ne day continuer sonn parce que li mu wax amul <laughs> kenn jaxataanu ko nga bàyyi muy def. Pape Moussa maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf jaajëf eh, ji bi maa ngi lay gërëm bu baax di remercier sénégalais yi ñu doon eh, seetaan yëpp lépp loo xamante ne dëng na fi rek suñu jëm yu xew yi la lu jub borom bi tabaaraka wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Pape Moussa nekk nag eh, suñu juriste nekk itam suñu consultant doon.